wa rahmatullah ñu ngi leen jaajëfal baax a baax seen ànd ak dakaranimo.com euh, tey nag ñu ñëw ci euh, sujet boo xamante ni boo bu ama am am solo la jagleel ko li nga xamante ni moo di sunu euh, internet yi ñu leen di gërëm bu baax a baax gis nañ réaction yi gis nañ commentaires yi gis nañ suggestion yi gis nañ critiques yi lépp nice na waaw lépp nice na kontaan nañ tey ñu ngi Louga fekk fi nga xamante ni moo di Idrissa Mboup Idrissa Mboup nekk benn modèle benn immigré boo xamante ni euh, liggéey na lu bëree bëree bëri États-Unis ñu bëree bëri xam ko foofu noonu de par euh, ci ci ci ci ci mën a joobam ci ci jubam ci xarañam di yëngu foofu ci wàllum xaj loolu jox ko idée mu ñëw Sénégal gi iddi fi ay xaj yoo xamante ni ñu koy wax exotique buli euh, buli bëri na ay ay ay ay xeet pitbull bëri na ay xeet mais exotique buli nag moom nee na mi ngi door a am Sénégal mi ngi door a am Afrique dañ ko jéem a topp ñu xam fan la jógee fan la xaj bi jógee euh, xaj bi mooy lan exactement ñu ànd see suñu frère ah, suñu frère suñu copain la muy la muy la muy di sit euh, Boy Djiné Boy Djiné ñu leen di jaajëfal baax a baax Idi ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm ci li ñu recevoir yow itam. waaw salaamaaleykum waa Sénégal Sénégal yëpp ñu ngi leen di siyaar di leen jox ko si nekk euh, si turam ak santam waa actuellement tey nag ñoo ngi si Louga fii nga xamante ni mooy dynastie Kanel. bi nga xamante ni euh, mu ngi nekk fii si Louga nga xamante grand Idrissa moo ko moom ñuy def ay exotique buli ñu ñëwoon tey ji jóge man ma jóge ba Thiès ànd ak waa Dakar Animaux ñëwoon tey pour seet ko. waa sama gars yi na ngeen def Dakar Animaux bienvenue euh, si AMDK Mbuub Idrissa Mbuub daane si Keno donc bienvenue. tey tey euh, Idi euh, boyine Djiné lan mooy exotic bully. wa l'exotique bully boo ko déggee mooy soo déggee ñu ni exo c'est tout ce qui est rare bully c'est l'intimidateur léegi nag kon boog c'est c'est quelque chose qui est rare et quelque chose qui est intimide c'est pour cette raison que ñu mun naan ko exotique bully c'est une nouvelle race ben ben bis tegu mooy lan race bi nga xam te ni dafa rare aussi ndaxte actuellement ni bi mooy premier couple bi nga xamante nii yi nga xamante ni ñoo dugg ci Afrique fii nii wax plus précisément nag ici au Sénégal. Euh, en fait est-ce que mën nga ñu expliquer tuuti euh, xaj bi ban croisement la ñu boole ba mën si am exotique bully. yes euh, xaj bi dafa nekk there was a like these dogs are those type of dogs that are required by the rich people just take like that so dañuy jël big body ñu compact ko seen little body maanaam exemple danoo danoo jël exemple. lu rëy def ko ci yaram bu ndaw pour lépp figure yëpp mën a génn te xaj boo gisal àdduna mix moo ko indi mix maanaam ñaar yooyu boole xaj bi dafa am lu ñuy wax French bully euh, franc di ko wax bulldog français mu am bully am euh, pitbull am bulldog français wax mooy mooy bu ma njëkk a wax plus américaine bulldog ndax boo ko da ngir featuring mi ci euh, kanam gi pourquoi c'est parce que borom alal yi.

ban defee compétition ñu réussir ko ban ko réussir nag ñu am leen bëgg mu génne ñaari type ñaari type boo ko déggee type mooy type ñaari type so first mooy bully mu nekk nii ak exotic bully mu nekk nii quoi parce que day nekk bully nekk exotic exotic lu ko indi mooy look bi ak caractéristique bi ki boo ko dafa am ay facettes mais pour nga mën koo gis da ngay ñëw ba jege ko pour mën koo gis facettes yi bii na boo gisee show la xale la moo tax gisoo mi ngi nii di forme ba daay woon yaam mën naa cee dugal nii sama baaraam loolu moo lay indil exotique bi so the more exotic they are the more expensive they get maanaam lu gën a exotique gën a cher mën na dem ba cinquante ba cinq cent mille dollars ça dépend si exotique am mooy un deuxième bi mooy the colors so these colors are really expensive maanaam couleur yi euh, day wuute si prix yi dafa am lu ñuy wax moro mooy simple bi moro euh, kii dana wax ni ko si si French am try moro am trico moro am cryptid moro tey yii ma la limal fii yëpp ñu ñoo nekk pi di gën a cher kii try moro la te bii am nga noo koy boolee beneen xaj boo xamante ni ñoo bokk type mu ne cryptid moro lu mu jur lu mu mënta jur day gumba xam nga muy gumba parce que da ngaa boole ñaari mooro yu bokkul mooro and mooro kenn du ko breed maanaam kenn du ko couple loolu lépp mu ngi ci secret xaj yi donc voilà. Euh, en fait molo bi ngay wax mooy lan exactement. molo moom mooy merle merle moom mooy couleur bi nii mu mel nii léegi dala bëgg a wax ni la carrément tricot merle la moom mooy li sax mooy mooloo lan. try molo waaw mooy mooy tricot merle am na choco merle yaa ngi dégg. am na am na am na am na am na lilac merle am na tamit lilac kase am na. amna na tamit ay chocomel la yëpp day am quoi si couleur léegi nag si couleur yooyu noonu nag si la prix wu xaj bi nag di génnee am na xaj yoo xam te ni dalay wane la comme ça couleur bi muy am tey jii nii dañ koy teg kenn woote ñu ñu ni ko ah ñaata nga fay mu ni nangam ñu ni ko ok xaaral ñu woo xaaral appel beneen appel ñëw comme boog vente au aux cher lay doon mooy waral xaj yi seen seen prix di di di exagéré en fait voilà ndaxte ndaxte couleur bi muy génne mooy exagéré loo prix bi nga xam te moom la xaj bi di jar. waaw mooy lim la wax rek bu doon maanaam euh, ku reg ku suur man nga koo jaay lépp ba mu des euh, nit bu xasee ba am li muy am mu regg mu suur man nga koo jaay lépp ba mu des xaalis parce que da nga xam ni borom xaalis yi ñoom ñoo ko créé borom xaalis yi ñoom ñoo ko bëggoon borom xaalis ñoom ñoo génnee financement ba am leen bëgg tey te aussi mi ngi mel ne tey nga am sa doom. exemple euh, mujj da nga koy protéger toute sorte ba nga xamante ni dara du ko gaañ ñoom it lii même chose yi nga xamante ni ñoom ñoo financé xaalis am ko muy borom alal yi mooy première. deuxième man mii dama ko ci yàgga a topp am na ku ñuy wax Babacar am ko doon wax sa appel vidéo topp ki nga moom euh, jabaram laa xam ki ci njëkk am donc ma bëggoon ci génnee sama dix mille dollars na ko am benn femelle laa soxla mu xooma delloo ma sama xaalis dana ma éducation ma ne ko yees mu ma daa soo ma this dog day not for you la maanaam dafa ne amaatee sa xaalis xaj bi du pour yow ma ne ko mais Mike waay waaye c'est lu waral loolu mun na parce que xam naa ne am nga xaalis waaye xaalis taxul nga am xaj bi ma topp ko trois ans nag parfois day dem sax vacance ma ñëw ànd ak yor xaj yi pendant trois ans di ko toppatoo la ba mu xam ne man li ma dëgg la ci moom bëgg naa xaj bi mu mu ma jaay xaj jaay ma ko benn bu nekk huit mille dollars donc ñaari dikkee ma seize mille dollars ma soog koo am ñëw war a jaay ma ko noonu daf maa ko teg ay condition conditions très ferme parce que man dafa yor maquette di jaay di breed di élever bëggul ma nekk compétition am. Mm-hmm. mu ne ma comme yow africain nga te bëgg nga bëgg nga am li Afrique te xam naa ne Afrique kenn amu ko mën naa ci jàppale mais conditions yi lii la dama la koy jaay benn bu nekk mille mais amoo droit breed ko maanaam produire ko fii si territoire américain lu tax parce que mënu ma la jox arme bi may rey maanaam ma jox la sàmm ñëpp ko bëgg. prix bu nee digg naa ko jaay ma ko ci mais yow li ngeen li xaritoo ak li may dimbali ak bu ma voyage ngay nekk fii pendant trois ans toppatoo xaj yi moo tax ma jaay la ko prix boobu mais nag doo ñëw di compétir ak man ma jox ko sama promesse mu signé ma signé ma jël xaj yi indi loolu moo ko indi Sénégal. en fait man j'aimerais savoir yow yi mu la jaay nga indi wala wala yeneen nga indi. ouais yi ma jaay direct la indi yi ma jaay direct la indi ndax boo xoolee si insta di nga gis vidéo bi aéroport départ bi New York ak ba nu mu fi euh, Sénégal di ngeen gis lépp si vidéo bi mais nag ça m'a coûté très très cher pour mu génn Amérique ndax xam nañ lu ba c'est des très protégé Amérique pour génne ko problème la donc du n'importe aussi n'importe quel vétérinaire moo ko mën certifié pour mu génn Amérique dafa ñu wax ne ay euh, euh, vétérinaire international ñoo xam ñoom ñoo gérer aviation aviation boo ko dégg mooy lépp lu jëm ci wàllu avion donc ñun nit ñi bu ñuy voyager fu ñuy daggee billet ak ñoom ñii fu ñuy daggee billet bokkul sax donc c'est nga génne nit Amérique moo gën a nga génne xaj Amérique donc finalement même amna ko ñëw na même mom sax chaque 2 3 daf may wax appel vidéo di xol xadi sen condition la nekk bien vrai que mi ngi Sénégal parce que ils sont tellement attachés si xaj donc voilà. que tey am na ñeneen ñu am à part yow fii ci Afrique. waaw boo xoolee nag Afrique pour le moment ñoo nekk seul si Afrique ñoom ñoo nekk seul si Afrique keneen keneen télé la ne vidéo la ni wax keneen mënuloo génne exotique buuli si territoire africain ku ko am na ko génnee boo ko génnee mu ngi mel ne tey. ñaari bëy nga teg ko dañuy nuroo karme du nuroo caractéristique nit mën noo wane lii moom alako du moom papier bu koy firndeel moom mii ñoom ñëpp benn bu ne ñu registré bu registration Amérique ñoom ñëpp ñi ngeeg moom luy wane ñoom sont des puissants de génération et génération kenn mësu leen a rax kenn mësu leen a si àdduna. tey man su ma su ma duggoon États-Unis ma dajanteeg koo xam ne yor na ci benn mu ne ma lii exotique buli la yan yan euh, critère laa mën na gis ba xam ne wax na dëgg wala waxul dëgg. thank you voilà voilà mi ngi mel ne tey nga ñëw ne ma am monté léegi lii dama naan la fan laay bës. mais yow mi ko yàgg monté yaa fi ak fi ngay bëss pour am li non la li mel tay li moy xaj bo xamanteni muy documentaire muy vidéo muy tel lepp nga xol YouTube yaangi fi Facebook baangi fi internet baangi fi do gis nit yor ko té ko nii doxantoo comme les autres c'est jamais boko défé da fay melni ni comme tay ki ni yor sen jama di dox ci mbir dañ koy rey valeur boobu la xaj boobu bii am fofu mooy ko gis mu yor ko soit mi ngi ci volom di voyager wala yor otoom doxonto paré mu duggaat ci otoom donc va et aussi xajbi euh ku munta am ci Afrique wala Sénégal euh, plus particulier dañuy ñëw ak sen papier donc ñom ñoy seul chef actuellement bo xam te ni na extérieur duggu ci territoire africain Sénégal ba sen génération ak sen génération di am këyit xam nga tay ñu jox la mi ngi jox la cœur ngay def ci des milliards ou bien des millions ñu jox la seulement ak davanté amo bàyyi ça veut dire que nekkoo ci dara. te loolu nag moo yàgg Sénégal moo bari Sénégal nit ñaa ngi koy def ni ñaa ngi jooy xaj gars yi di fay xaalis bu bari mais li yor amul leen lu koy prouver lu koy valoriser yoon ni lii fa mu jóge ba nu mu egsi si ñoom valeur baa ngi maintenir te ñii am nan ko kun kun ko munta jox ku ko munta am da ngay amaale ak kayitam mais nag foofu day leer tuuti ci kayit yi pour ko muy leer mi ngi mel ne like man ma am sama doom mu juddu bu ma ko téyee si kër gi rek. génnul dem euh, yóbbu ko mairie déclaré ko et cetera et cetera du am kayit di même chose bu bu juddoo ñun dañ koy jël envoyé ko bureau de bu Amérique ñoom ñoo koy jël joxaale beneen kayit nga remplir ko envoyé waat ko ñoom ñooy defar kayit di jox nga mu xam ne authentique la te ñoom ñëpp avant ñoo defar kayit dañ def DNA test mooy euh, test ADN mu leer na ko mâle beeg femelle bi nga wax ñoom ñoo ko jur ndax mâle beeg femelle ba seen maamaati maam seen DNA mi ngi ci seen laboratoire et enregistré donc voilà. en fait tey xaj bi bu ñu gisee ni mu ñàngee ni muscle yi ossature bi est-ce que mën nañ ko jàppee xaj bu xaj bu dangereux. non non xam nga tey jii nii l'exotique bu li xaj la bi nga xam te nii mën nañ mën nañ ko mën nañ ko catégoriser si nature yu bari. parce que tey jii nii c'est un chien bi nga xam te ni fu mu li li mu composé dafa xaw a bëri ndaxte laal na bulldog laal na bulldog français aussi laal na l'american pitbull terrier donc xaj bi nga xamante ne ni nature bu la neex mu nga koo def su la neexee nga def ko un anisdog mooy le chien nounou de la famille su la neexee nga def ko un mën nga ko def un chien de garde moy xaj bo am te ni day songu te amul dara lu muy ragal bu la neexee aussi nga def ko tamit ton chien de chien de chien de salon comme et comme les bichons maltais et tout ça bu la neexee aussi nga def ko tamit xaj bi nga xamante ni euh numu ko mën waxé euh comme un jouet en fait naté xaj yi nga xamante ni ils ont de nature très très calme. wa ñom dañuy dañuy doon xajam de de très très calme mais n'empêche que yow bi nga xamante ni y'a moom sa xaj bu la neexee nga xool numu la nexé nga def caractère bi nonou c'est ça quoi. mais xaj bi est ce que am na doole am na doole dëgg-dëgg. laay la <laughs> ils sont tellement puissants non doo comprendre nii ba pare nag ba pare nag dañoo diis ndaxte gis nga ko ni nga koy gisee day def 30 kilos nii nii nii mu toll nii. te chiot la chiot de 5 mois day def mu ngi nii ah, day def 30 kilos. non ba pare dañoo am doole Ma dama foog ni nak est-ce que du gataay be tax sax ñu ñu lay mën di la diri di la mën di la ñor di en fait ndaxte dañoo bëri doole dañoo am puissance macha en plus buñ buñ boo ko déclenché buñ té euh, boo ko déclenché buñ téewee duñ bàyyi waaw buñ buñ ne one day have grab téye ko nii waaw day naa gën a lay dégg. waaw loolu nag la mooy fond de gueule dañoo am fond de gueule comme les American Pitbull Terrier mooy buñ tewe rek dañ dañuy téye maîtriser duñ bàyyi voilà lol nag say si yow nag nga déclenché ko lay doon mooy nga nga xoolee nu la xaj bi nature am la neexee noonu nga koy def. Voilà. C'est-à-dire que vous avez 50 000, 100 000, 200 000, 800 000, 300 000 euros. C'est-à-dire prix exactement Oui, ce n'est pas le prix exact, mais c'est le prix débutant. J'ai un exemple, il faut commencer avec je vais vous le Donc, si prix du club le simple, le simple, le plus 200 000, 000, 200 000, 400 000 euros. Vous savez, 2 400 000 donc mooy li nga xamante ni moom moo gën a yomb ci ay couleur am. show waaw bu amul eight weeks eight weeks huit semaines. yeah donc donc voilà et aussi euh, du xaj boo xamante ni like da ngay ñëw ne am naa sama xaalis am jox ma ma dem noono day fekk yow xaj bi mooy définir ki nga doon day xaj boo xamante aussi euh, ngeen baame terme du xaju baadoo la. just take it that way you know même fu mu sookee ko ba egg Sénégal ñoom ku ko yor téye ko dañu xam ni nga téye xaj bi de dox wala wàcc o dana jëru sax ñu laaj yow la kan yow mi téye xaj bi di dem ak moom xam na ni doo baadoo ba xam na ni di do xaju do xaju baadoo la donc voilà mën na nag varier ba cinq cent mille dollars mën na koo varier donc internet baa ngi fi boo ko xoolee boo ko desee di nga ko gis tànk rek ñu ngi wax ak papaam euh, ki ma ko jox sànq ban toogee ci saal bi amaana ma sokk ci doon filmé ci yéen ma kan la appel vidéo bi papaam euh, génnee na ci un million dollars te nan la ko génnee sperme am lan jaay maanaam cinquante personnes ñoo ko jënd kenn ku nekk génnee vingt mille boo ko boole muy un million man sax tey laa ci jot news boobu tey laa ci jot maanaam euh, dama ko woo doo ko xamal nag maa ngi def émission yi xaj yi comme que moo ma ko jox. mu jëm expliquer loolu moom mu ngi si yoon nii dem aéroport damay xaj yoo xamante ni moom lay délivrer ji. en fait moi ce que je ne peux pas comprendre lu tax nga ne Afrique yow dong yaa ko fi am et que am ci wàllum xaj bi et te am nañ xaalis bu dee mun rek moo koy jënd moom gars yi am nañ ko. <laughs> ok mooy li ma wax sànq rek am xaalis kese. taxul nga am xaj bi boo dégg boo seetloo ne woon naa la sànq man damaa génne sama dix mille dollars cash ne ko maaj mun maa mën a ko am mu daal ni ma xool ma xool ba mu ñëw jëlaat sama 10 000 delluwaat ma ko ne ma xamoo valeur xaj bi boo yaakaar xaalis bi nga mooy valeur xaj bi ndax nga si woon da bu ñu ci bëggoon exemple 50 000 dollars du fanaan ma topp ko di awlaf di wax euh, tarbiyu buy dem vacances ànd ak jabaram mu nekk ñi ngay africain xam ñu caaxaan daf may bàyyi ma dem këram ñuy toppatoo xaj di leen sang ma di leen xool di leen topp pendant trois ans saa yu demee vacances ba un jour ma ñëw di dem mun na kañ ngay demaat Afrique ma ko mun a avant nga dem ñëwal ma ñëw jox ko dix mille yu ma ko waxoon trois ans passé mu génne ki 2000 dollars delloo ma ko téye 8000 benn bu nekk mu jaay ma ko 8000 ne ma xa gis nga li may daj gis nga ni xaalis taxul nga am ko man bu dee man rek moom bu ma ko jox muy maay mu ne man xaalis fu mu yem yàlla may na ma ko mais pour nga xam gëdd xaj bi moo tax man nangul la ko jaay la ko 8000 te en seule condition mooy condition yu ma la tegaloon sànq donc kon am xaalis am milliard. taxul nga am taxul nga am taxul am xaj bi ndax ba ma koy am man yàlla bàyyi ma yàlla dimbal na ma mais dama génn sama xaalis cash taxul woon ma am ko ba trois ans bi ma ciy toog di guitare bi tax am ko donc bu amal milliard amal des millions boo xamul gëdd xaj bi xamoo kii euh, valeur boo taxaw fi mën la ci biti ndax xaj bi aussi ba muy ñëw euh, beneen bi noir marron blanc bi ñàkk naa fi ñu fami xaalis wax tal nit jaay ma ko te ñu quatre-vingt-dix-neuf personnes xaalis bu leen ko joxoon. ñu jaay leen ba may ñëw di aéroport di dawal xam ne le lendemain laa war ñëw Sénégal dégg naa ci xaaj weex taal taxul ma jaay ko mu indi ko Sénégal parce que man ma jëm bopp bu dee xaalis rek lan may fay wekki la ci man mais ku xam gëdd xaj ko man fi ma jaar ba am ko mooy tax nga xam xaj bi donc xaalis rek taxul nga am ko donc voilà aussi bëgg naa koo pointé ndax kii da nga koy comme sa doom mm-hmm. donc xaj bu bu am valeur xaj bu la. donc voilà. d'accord ñu la ci ñu la ci encourager bu baax a di la si di la si féliciter. mais tay indi nga xaj bi c'est quoi votre votre projet le c'est quoi exactement. waaw objectif nag lii la man dama yàgg def élevage yàgg naa ki trop donc dama daan ñëw man sama premier Dakar la ne dama daan ñëw dugg si élé gars yi def élevage tout cela ma gis boo yoo xamante ni dañuy jël seen xaalis financé ko ñu jox leen loo xamante ni man mi dem di gis xadi fan soxla ko bu moko ko sax duma ko jël quoi ma ni booy doom mérité nañu am lu bax lo américain yi am pourquoi Sénégal mën ñu ko am. comme daal ma indi aussi objectif bobu la amone ñom ni am ay kay yu valable comme kër nim koy amé auto diko amé nit diko amé ñuy am yu ñuy produit Sénégal amé nonu baña am rupture lool la ci jublu té aussi ñom ñu am comme les américains yi am moy association bo xam te spécialement c'est réservé pour. les exotiques buuli pour aussi loolu aussi mu leer te allah danañ ko am te lool laa jublu kayit yëpp gars yi nangu nan ma ko day day already approved nga xamante ni ñoom maante bu doon école la duñ bokk kenn école seen spécialement dañuy am seen i gathering together muy exotique buuli only seul ñoom kese. tamit bii bi tamit ce n'est pas du Sénégal quoi mais Afrique la. comprendre nga ndaxte dañu bëgg de benn club bi nga xamante nii c'est c'est uniquement pour de l'exotique bully comprendre nga ba pare nag ñu am nag seen propre centrale canine boo xamante ne nii c'est reconnu xam nga loolu loolu loolu mooy objectif wu xaj yi fii nii si Sénégal mais objectif premier bi du du visé wul Sénégal quoi donte nag ñun ay doomu sénégalais lañ xam nga. mom tamit euh, mu ñëw tamit am initiative bu rafetee ni c'est pour ces raisons que ñun ñun ñu juk ci ci contribuer quoi mais mais vision bi deug deug deug Afrique la te xaj yi renommée international la am dañuy mën di voyager tey jii xaj bi bu ko bu dee voyager mën naa ñibbiwaat ak xaj bi avec avec ak papier yoy non mais tey jii nii am na ñoom te ni importé nañ ay xaj ñu ñëw fi avec le pedigree et tout mais tey ni nii bu fekkoon Maroc gi kasse la ko bo boo nekkoon delloowaat xaj bi Maroc mu am problème bu né pour mën ko delloowaat xaj yi nag amuñu genre problème boobu non tey ni nii boo yoree say chevaux bu ko bu ko sénégalais bi jëndul wala nigérien bi jënd ko wala malien bi jënd ko benn américain bi nekk États-Unis mën na koo jënd te da nga koy mën a envoyé mu jot si voilà c'est ça quoi. ok waaw xaj yi moom dañ ko indi uniquement pour euh, participer ci monde canine bi. pour maanaam Sénégal toll foo xam te war na egg euh, si niveau américain yi pourquoi pa parce que ñu bëgg xajafe ne bu gën ñoo bëgg américain gën ñoo leen bëgg xaj ko ma leen ëpp moyen nag mais américain gën ñoo bëgg Sénégal ay xaj ne pourquoi pa ma jox leen ma indi leen lu ñu médité loo xam ne bu ñu ko dina xam ne lii lu am solo lu am valeur lante moo tax xaj bi ku la ko jox euh, ëllëg ak fu mu mënta jóge bu amul logo bi AMDK si këyitam.

AMDK. donc voilà ngeen bàyyi loolu xel. donc donc Afrique ku fi yor xaj bi rek fii la ko fii la ko war a mën a jëlee. Afrique bi yëpp waaw ku ko imposé Afrique ku ko parce que dana mooy li ma la sa problème dañ leen a protéger. donc voilà ku ko am sous région Afrique Sénégal lépp ku la koy jaay kayit bu la jox képp amul AMDK xamal du moom ndax aussi day ànd ak lu ñuy wax. IMEI euh, nombre mi ngi mel ne comme iPhone wala ñu xam ne e wax IMEI na e nga koy wax IMEI xam nga ko waxee waaw boo ko tàppee sa téléphone dem ci site bi tàppe ko da génnee génne yow sa këyitu xaj kuy papaam kuy maamam lépp tribu bi lépp la lay génneel donc nga xam ne yow li nga yor mooy bu baax bi mooy valeur am te maa ngi nii toog fii Sénégal dugg si ordinateur bi tàppe di gis samay information xaj si database bu Amérique donc voilà ñu bëgg Sénégal yi am li américain yi am incha allah. ils sont vraiment à à ñu leen di gërëm ñun ñi nga xam ne ay amateurs lañ ñi nga xam ne dañu dañuy topp xaj ñu leen gërëm ci jéego yoo nga xam ne ñu ngi koy teg ñu ngi koy jaajëfal bu baax numéro bi gis nga ko mi ngi noonu directement bu leen amul intermédiaire inter Sénégal intermédiaire yee ko yàq waaw moo xaj bàyyi bàyyi ki am xaj dem jaay directement engagement yi mu jëlal ko boppam gars yi intermédiaire yi nañu jàppale tuuti quoi xam nga ñun client yi nga ne dañuy bëgg di wër xaj gars yi intermédiaire nañ si génn quoi vraiment cher nañu affaire yi duñu wax dëgg et tout c'est compliqué daal métti na donc numéro mi ngi noonu directement à chaque fois qu'on ñu def benn émission dañuy jël numéro éleveur bi wala numéro producteur bi ñu def ko directement ci biir amul intermédiaire donc woote leen ci seen numéro yi ngeen jokkoo ñoom directement ñu ngi leen di jaajëfal bu baax jaa ngeen jëf